taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ca di leen siyaare tey nag ñu jàkkaarloo kenn ci jàmbaari sëriñ Tuubaa yi di sëriñ Modou Kara silla moom sëriñ Cheikh silla Diwane moom sëriñ ma Mapaté silla ma nga xamante ni moo jébbalu woon ci sëriñ Touba sëriñ Touba boole koog maam Thierno Ibra Faty Ndaamal Daaru jëriñam ju tedd ji nga xam ne nii nag moo fi ko nekkal ci kaw suuf di sëriñ Modou Kara moo am ab soññee rek boo xam da koo bëgg a soññi mbooleem taalibe yi nga xamante ni danoo jokk ci moom mu doon seen jëwriñ ci kër seexul xaddim am lëggéey boo xamante ni da leen caa bëgg a soññ woo ca mbooleem taalibe yi kon ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ Modou Kara Sylla mu sëriñ Cheikh Sylla mu noo ngi sunu xalifa sunu xarit suñu wëlëre sëñ Muntaxa yàlla wéral ko te guddal aw fanam te boole ko njabootu sëñ Touba gépp sëriñ Abbas Mbacke sunu sëriñ yàlla yàggal ko fi ak njabootug borom daaru gépp xalifa borom diwaan sëriñ Cheikh Fatou Seye Ndiaye yàlla yàggal ko fi te wéral bu loolu jàllee nag damay waxtaan ak ñi ma yàlla boole ndokk ba nga waxee sama bëgg-bëgg xam nga boo ma wax boo waxoon fii lu dul nekk seen jëwriñ rek naa la mere sëriñ Tuubaa mooy koo xam ne la mu waxoon ne liggéeyal naa yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ba mu fayee ma adduna fayee ma àllaaxira daana wax ne ku yàlla bind boo xaree xol ba fekk fekk ma ci man ahmadul xadim sa àjjana liggéeyal naa la ko mais soo ko ñàkkee yaa ko xañ sa bopp léegi nag li ñu war a fayee Serigne tubaa nag mooy liggéeyal ko liggéey bii nga xam nag dañ koo sémb te sémb ko te ay ay ay kilifa yu jege sëriñ tubaa sémb ko defe naa ne seex bu ngeen dem këram day rus ba pare soog caa wax ma bëgg a wax man li may bëgg a wax du bari képp koo xam ne ci man la aju te nekk tubaa ci laa koy tàmbalee. soo amee sa ab dépasse weer te génne woo 1000 yi nga xam ne moo jëm ci liggéey bi yaa wax ne maay sab sëriñ waaye jàpp naa ne man doonatuma ko Sénégal géppit nag ak bitim réew maa ngi leen di ñaan mbooleem ku nekk bitim réew waxuma ko teg bi de duma ko sas aw ab teg lam man ci dooleem bu tegee ba noppi na ko ci boole wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ñëwoon fi tey na ci kàddu Touba ca kanam ci jëruñu di sëriñ Abibulahi Mbàkke Cheikh Amadou Fadam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo àndal liggéey kàddu yi nag kàddu yi cant la yoo xam ne Touba ca kanam gépp tàmbale ko sëñ Habibou ba si ñi si gën a suufee dañ kaa jëm ne si Amadou Karaam yi li tax loolu mooy weer wi ñu nekk di août 2020 mel na ne adduna bépp xam nañ Touba ca kanam ñëpp rii nañ wut si Touba ca kanam ba ni soog a tàmbale muy door muy metti sa la yëkkati woon kàddoom tàbbi si liggéey bi bokk si ni si ñëpp yi bokk muy sa Daarul Moxti tombeeg 23 janvier 2017 boobu liggéey bi amagut at amagut weer ndax premier saafé la tàmbali 23 saafé ñu génn dem Louga wàññee ko fekk ko Daaru Muxti mu guddi lool mu jël sa engagement yu am solo yu mat yëg nañ mbooloo mu baree bari ñoo xam tàbbi leen si liggéey bi tegay seen jëwriñ te sa kàddu yooyu moo taxoon kon lool nag ñu ngi la si sant bu baax a baax te xam ne woote ba nga woote woon kat xañ na liggéey bi daa tool fa xam laaj na ñun labalaat ko waaye ko kon nag soo watwaatee nii xel dana gën a dal dana gën a dal yaakaar dana gën a dëgër kon nag sëriñ bi nee mi ngi sant bu baax a baax ndax kuy liggéeyal sëñ Tuubaa di si góorgóorlu ña sa gën a yaay gën gën saa yell mooy mag ñi nga xam ne nag ñoo àndoon ak sëriñ bi ba muy jafe joxoon ko seen lépp ku wooteel sëñ Tuubaa ab liggéey te gisoo si seenu njaboot war ngaa war ngaa tiit war ngaa jaaxle waaye nag boo geesoo gis leen si nag dana loolu dana dëgëral kàtt na la mu wóor na li ngay woote suñu Tuubaa na ko